xeyna na bu jamono rek li sax du ko jar ndax fi sunu kër la ah motax sax may ñew ànd ak délégation bi ma andal ah sunu mbokk dara sunu ah, ah, wali yu ndax ah, fi tay moy kilifa buñ fi ñewé mom mom moo ñu fi toogal buñ fi duggé tamit moy suñu kilifa ndax foofu rek lañ mën a jaar ndax waxtul bu yootu min abwaabiha muy Cheikh Tidiane Niang di di ñu jàppale bu baax te jàppale gi jàppale bi ngir doomu daal rek tax di wax rek ne comme ni ma ko waxee rek fi sunu kër la ñu ngi leen di ziare di wax inna lillahi wa inna ilayhi di wax ne lu ñu leer la de ci ñuy wax ne yaa lay taxaw mi ya'lamuuna maa xafara rabbi wa ja'alani minal mukramiin ci lay bokk ndax ku xam papa Cheikh danga xam ne jaamu yàlla ak développement ak jël alalam di jox nit ñi rek la fi nekk woon ak ku ñëw mu yëg la ba nga yaakaar ne yow rek la xam fii de bi ma fi njëkkee ñëw ànd ak ah, Pape Idrissa géey dañu kenn nekkul ñun ñett rek fi nekk mais dafa mujj tëj fii ne dugg leen fii ci biir ñu dugg mu wax ma fi jaar sama waajuru alaaji Baara waxuma ñett yi ne ma chambre de commerce xam ko bu baax daanaa fa dem waxuma ne inna al birri an yasila ahadukum wudda abihi mo wax ni ko ndax ak mbax moy nga top sa cosaanu bay wax ñu tamit li ne allah allahu fi awnil abdi ma kaana al abdu fi akhi axi tànk ngi jog ne dimbali nit ñi rek mo leen tax jot ngeen wuti da ngeen ko am te yalla dana leen ci yëkëti kon nag moom daana ma bayyi xel bu baax man tamit ma defoon ko sama lepp ndax am lo loo xam dañ ko waxtane fi dafa nekkon meewu tam waye kérok la gis yalla def ko ndax biñu ñuy wax ci affaire aéroport mu ne man de jaxlé na sax biñu waxé aéroport yépp te bu Kaolack daa sax mo ci dox moo ci dox ndax daan danaa fa yónnee am na ko ma booleeloon ci biir Dakar mu boole maak alin Diouf mi xam na ko ba mu woo ko waaye gis nañ ne tey xëy na Kaolack waa yéegu ko waaye militaire yi ña ngay defar aéroport bi yaakaar naa balaa yàgg aéroport bi dana pare loolu moom lu leer la ña ngi ci liggéey bi te loolu dana yombal lu bari ci dem beeg dikk bi ndax gis nañ ne fii du dëkku ah du dëkku régional dëkku international ndax man nee naa ko dem naa ba Nigéria dem naa fa dem naa Cameroun dem naa foofu yëpp ndax eh, da nga gis ñoo xam ni boo nee boo nee ñoom Kaolack ab réew la xamuñ senegal Kaolack lañ xam muy loo xam ni tamit eh, fekk na ma ma dem ba Chine ci dëkk mu ñuy wax Xanju ñu dem ci benn jàkk xam nga Chine moom gis fa benn jàkk sax daa jafe waaye ñu dem fa benn jàkk fekk fa benn imam mu ne Afrique de am na ku ma fa xam mun a xam mu génneel ñu bi fa bàyyi jaaree jaarantu ci dëkk boobu kon loolu xam nga nekk kon mooy eh, eh, mooy mooy mooy mooy jihaad mooy watu eh, haajiruuna fi sabilillah mooy loolu loolu ñëpp ko xam kon nag sëñ bi daal ñun dañu ñëw pour gën la feddali suñu njëbbal gën la feddali suñu inna lazina yubayi'unaka innamaa yubayi'unallaha yadullahu fawqa aydihim ndax yonent bi la doon waxal ne ko jaayante kon daal jàppal ne dañoo ñëwaat feddali suñu jaayante ndax euh, euh, al ulama warasatul anbiya lépp loo daan def ak yonent bi rek boo gisee boroom xam-xam mi war nga koo mën a def ak waaw ndax loolu moo tax ñu ñëw jaayante bi ak feddali kóllëre gi di la wax ne lépp loo xam ne nii war nañu fii soññuñu ci ndax lépp lu ñu war fii rek suñu njariñ la waaw suñu njariñ la lépp lu ñu war fii rek suñu njariñ la xëy naa Cheikh sama sama Cheikh Tidiane wax na fi sax ay mbiru politique ak yooyu yëpp waaye ñun li ñu giital mooy ay da nongol daara lañ euh, bëgg dara yóbbuwuma ci ci politique wala ñuy wut dara ci dëkk bi ah li ñu indi mooy bëgg dëkk bi mooñ ci yóbbu waaw bu wut si wuñ ci dara loo xam ne dañuy wut dañoo bëgg rek dëkk bi waaye yàlla mooy dogal lu yàlla dogal rek ci ñun nag dañ koy nangu Ah, ndax nit ki mom bu fekke dara liggey rek mo la ko taxa jog liggey rek mo la taxa jog ci loolu lo ci lu la ci fek rek muy lu muy lu muy lu bax te lu bax rek la cay fek ndax so demone ba bëgg ko tamit yalla dogalu ko dafa gën ci yow asa an tuhibbu shay'an wa sarlakum wa asa an takru shay'an wa khayr min non rek lañ ko jële kon nak serigne bi ñi man dal ma ngi lay gëna ma lay fedd lool ak ñima ma ñepp di ñaan yalla yalla saxal la fi Ah, ba nga xam ne nii ah eh, li sunu baay bi sunu maam ji ah commencé woon fii àggale ko ba lépp loo xam ne nii yool bi nga xam ne nii nëboon na ko mu fekk ko fa ndax li ñuy wax ne nit moom bu génnee àdduna ñaar rek lu baax lu baax lu mu defoon wala ku koy ñaanal